Ah, boo déggee lii nga xam ne ziyaara bi ñu doon wàcc ziyaara Cerno Daawuda Si radiallahu taala anhu yegsi na si njiital xalifa bi Cerno Almaami Si ibnu Cerno Daawuda Si radiallahu taala anhu ak rakkam ju ja Mulaay Abdul Aziz si ndigal Serigne Babacar Sy Mansour xalifa Seydi El Hadji Malick Sy radiyallahu taala anhu ak rakkam ja Thierno Madani xalifa Thierno Muntaga ah nag la 18 mai lay am inchaa allahu rabbi fële sa xombal kër yaa xam kon boo déggee annonce boobu rek nga xam ne loolu moom mooy sa invitation daayratul ixwaan wal ahbab ak mboolem daayira ya nga xam ne ño ñoom ñoo sukkandiko ci Thierno Daouda Sy radiyallahu taala anhu di leen yëgal ne programme baa nga war a commencé alxamis inchaa allahu amoon ci rëbës ñu fay def conférence bu rëy conférence ba nag ñoo ngi fay waxtaanee les œuvres de Cerno Daouda Sy radiallahu taala anhu si njiitalu xalifa bi Cerno Almaami ibnu Cerno Daouda Sy ak rakkam ju baax jamula Abdul Aziz